J'ai nako diplôme d'honneur bi nga le ministre du PSE en l'occurrence docteur Cheikh Kanté dans le cadre de la lutte du Covid-19 le Denoba chargé de la commission dominante de la ville de Thiès adjoint au maire téwal ko fi vraiment ñu am ci contenté bu di wax ni nous réitérons nos satisfaits notre satisfaction et nos encouragements au maire de la ville par rapport à tout ce qu'il est en train de faire dans le cadre de cette Covid. Il ne cesse de traduire en actes et de manière concrète la vision de son Excellence le, euh, président Macky Sall dans le plan Sénégal émergent. donc le que li impression cérémonie de remise de diplôme d'honneur de la part du ministre Cheikh Kanté à l'endroit du maire de la ville, M. Tal Par ailleurs, le docteur Cheikh Kanté, depuis le Covid bi au Sénégal il a dafa nek chantier parce que qui dit PSE c'est l'ensemble des programmes et projets qui se trouvent dans les différents ministères. Donc si vous avez taxaw seetlu ci conseil des ministres est passé dañ lay au titre des communications individuelles, le ministre en charge du PSE revient sur des réformes du PSE le PSE doit se métamorphoser après le Covid pour une relance économique quoi qu'on puisse dire mbas mi impacté na Sénégal à l'image du docteur Cheikh qui est en charge du PSE mi ngi ciy xalaat ba bind ci livre bu tudd Tam Tam de l'émergence di wax naka la nan la ak fañu mëna jaar pour que économiquement le Sénégal se remet sur les rails de l'émergence encore une fois di remercier tout le monde ñëpp ñu def déplacement ak dérangement ñëw assister cérémonie bi di remercier encore une fois mon ami mon frère parce que deno ba ñaara ñu boole waxuma ko ci cérémonie mais tey cérémonie, mais légui dina ko wax man dana ba moma tété ci politique dana ba moma formé ci politique suma amé bagage wala ma am capacité moom moko def ci man benen bi ba def sama mariage civil daf ma ne keneen du def kudul man mané ko boko waxulon dit suma ko suma ma lenen ñu saaga ci dëkk bi ndax lima mel ak yow ak fi nga jaar ak man donc moom mo def sama mariage civil à la mairie te bala may dem mu jël acte yépp jox mako ma dem mo né ma mon frère comme ni ma ko daan defee di la accompagner damay continuer di la accompagner donc ma ko ciy remercier au passage ak conseil yi nga xam te ne dama koy apporter ci wàllu politique lépp lu may def musuma dugg ci politique ci projet ci programme te waxtaanuma ko ci ak moom ba mu jox ma ay orientation ak ay conseil donc maa ngi koy gërëm encore di ko sant di ko ñaanal fu mu bëgg a egg ak projet yu mu am ak ambition yu mu am fii ci Thiès yàlla dimbali ko ba loolu vraiment mu mat di ñaanal le maire Talla Sylla également yàlla guddali fanam wërali cëram ba liggéey bi mu ci et on renouvelle enfin notre engagement et notre détermination derrière le ministre du PS e, en l'occurrence le docteur Cheikh Kanté je vous remercie Je euh, euh l'aide de félicitation bi nga fédération nationale sëriñu daara yi yónnee nañ ko bu le maire de la ville de Sylla ndaje bi nga xam ni sëriñu daara yu Thiès euh, président Arona moo leen jiite defoon nañ ko ak le maire de la ville de euh, de Thiès pour euh, féliciter ko ginnaaw Binga bi nga xam ni général des Mourides yónnee na maire de la ville ginnaaw félicitations. yi nga xam ni président de la république bi nga xam qui yamul rek ci féliciter ko mais ci li nga xam opération waañu bi nga le maire de la ville ming koy def depuis presque cent jours ginnaaw félicitations yi nga xamni ni jogé tous les jours ci population wu Thiès yi ak ñi nga xamni ni sax dëkkuñu Thiès ndax bu yagul barki demb rek le fi porte-parole Khalif général des Mourides sëñ Bass Abdou Khadre yónnee xéwal yu bari pour jàppale le maire de la ville ginnaaw loolu lépp ci ay félicitations ginnaaw bi fi Serigne Mboup ñëwee fan yi moom tamit indi ay xéewal jàppale maire de la ville ci opération waañu daara yi euh, le ministre chargé du PSE le docteur Cheikh Kanté tey moo diplôme bi muy diplôme d'honneur jagleel ko maire de la ville Talla Sylla pour taxawaay bi nga xam ni am na ko ci xeex bi nga ñi ngi koy mi ñëpp d'accord ni ci Sénégal moom ci collectivité locale yi ci maire yi fi ne ki ci gën a taxaw ci xeexu mbas mi moom ñëpp nangu nañ ni Talla Sylla la boo boolee maire yi boolee ministre yi boolee Sénégal ñi nga xam ñoo fi nekk ñëpp ci taxawaay moom xeex ci ku jiite ab institution Talla Sylla moom ñëpp d'accord nañu moom moo ci jiitu loolu nag la ministre Cheikh dëggal tey ba yabal euh, ki nga xam ni mooy coordonné ay nitam fii ci Thiès muy Dieudonné Manga mu yabal ko fii mu indi diplôme bi jagleel ko le maire Talla Sylla pour wax ko ni daf koy encourager ci li mu ne waxu ko ni yegg nga de mais da koy encourager parce que nag xeex mbas mi nag li ci des bari na waaye encouragement yi dina tax le maire gën a góorgóorlu gën a am taxawaay ci xeex bi nga xam ne vraiment mi ngi koy xeex euh, euh, mbas mi ndax nag euh, taala moom lii rek a ko ñor nekk ci wetu askan wi nekk ci kanamam nekk ci ginnaawam pour que ñu bañ a am yenn jafe-jafe yi pour que mettit bu ñu am rek soit mu fajal leen ko wala moom mu dékku ko ba nga xam ni askan wi dootuñu am mettit lépp moom mu àngu ko mu këppu ci kawam

dañuy bàyyi ba yëf yi sotti rek ñu génnaat dajalewaat seen ñetti nit ak ñeent di wane ni amoon nañ ci taxawaay te amuñu ci nag benn taxawaay bu ñu sañoon sax lii taal a nekk nii di ko doxal ci biir dëkk bi bañ a sotti waaye ñun daal que ñoom ñu def walla ñu bañ a def terewul ba ñuy commencé opération waa ñu daara dañu ne woon taala mënu koo dékku semaine mu dékku ko weer ñu ni bu ko dékkuwaatee ay fan taxaw mu dékku ko boobook léegi léeg mu mat téeméeri téeméeri fan maanaam cent jours te terewul boobu ba léegi mi ngi koy def di jàppale sëriñu daara yi di taxaw ci wetu ndongo daara yi pour que ñu bañ a xiif bañ a mar nekk ci situation yi nga xam ni mooy situation yi gëm yu gën kon ñu jàpp ceeg ñu bañ cee jàpp terewul yàlla def na ñu leen ëpp dayo fuuf ëpp leen màqaama fuuf ndax nag président la république bu demee ba génne ci gaf boppam jàpp ci jàppaat ci yeneen i kilifa diine génne ci seen gafag ak bopp jàpp ci di ci jàppaat bu ci ñenn ñi jàppul du metti maire de la ville du metti waa Thiès.